ko arrahmanu ala al arsh istawa yàlla nga tiim arash kenn ci taalibi maali yene woon ca suufam di di ko déglu ne ko kayfa stawa ala al arsh naka la yemoo ci kaw arash imam malik daa mer daan ne wax waxam ju siiw ja al istiwaau maalum yemoo ca kaw sunu borom yemoo ca kaw arash luñu ñu xam la maanaa ci làkku arab li firi mooy ala wa artafaa wa staqarra mooy yàlla subhanahu wa taala dafa tiim arash kawe tiim mbindeef والكيف مجهول من واي نان لا نيك تي كو عرش بان كيفيه بان فاصون لا فا نيك اه لولو خمو نيو كو نخ يالا واخو نيو كو مو والايمان به واجب لولا امام مالك واخ گم ني يالا nga tim arash neena lolu war la wajib والسؤال عنه بدعة لاج نك لا فا نيك نك بدعة لا نخ لان نخ ني نجيك ني داو نيو كو لاج تي يالا جانغلي وكو يونتو بي جانغلي وكو كون خمو نيو كو في لا نيو رونيم كون لي موي باس باس امام مالك مو ني لي موي سما باس باس دي موي باس باس اهل السنه والجماعه kon man imam malik ci fiq amna masail sax yo xamne damay wuté ak mom waye ci pass pass mom lepp pass passu imam malik mom jassim lépp lu imam malik fas rek man dama ko fas te bokku na ci moy masla yi ñu doon waxtane léegi yépp imam malik non la ko gëmee allah dego sëñ seen xana dego waxna ko ci bir waxtan wi borom bi tabaaraku taala jëmmam ma nga tim arsh comme ni ko yonent bi waxé ni mu waxee ne jaariya bi bi mu ko laajee ne ko ana yàlla mu ne ko ma kaw asamaan mu daal ne ah kii gëm na yàlla goreel ko yàlla subhanahu wa ne yàlla subhanahu wa taala eh, seen boroom ma nga tiim arsh arrahmanu ala al arshi stawa ma tiim arsh kon jëmmi yàlla subhanahu wa taala ma nga tiim arsh li mooy pas-pasu ahlu sunna moom laa fas firnde yaa ngi noonu amma xam yàlla yàlla xam-xamam mi ngi fépp amul dara lu koy wump fenn ci benn place ci fi mbind li mu bind amul fenn foo xamante ne xam-xamu yàlla dara dana ko fa ump benn kàttanam mi ngi fépp yàlla subhanahu wa mooy manipule àdduna bi ci kàttanam lépp moo koy manipule kon kàttanam subhanahu wa taala dara tëwu ko ci bépp place bu mën a am ci àdduna ci li mu bind ab gisam akub déggam naka noonu loolu mi ngi fépp yàlla subhanahu wa taala dara du ko wump ci lu ñuy gis dara du wump ci lu ñuy dégg lépp lay dégg lépp lay gis ak fum mu mën a doon fu mu mën a nekk wa hakada lii mooy li nga xamante ne moom laa fas te ahlu sunna wal jamaa moom lañu fas fas tontu laa ngoog lan mooy firnde yi borom bi tabaraka wa taala moo ko wax ci bu dee ci gis beeg dégg bi wa huwa samii moom mooy gisaa kon dara lu ñuy dégg du ko wump albasir euh, moom mooy déggaa kon dara lu ñuy dégg du ko wump albasir moom mooy gisaa kon dara ko wump ci lu ñuy gis wa huwa bi kulli shay'in alim yàlla xam na lépp kon dara du ko wump ci xam-xamam ba mu ngi fépp kattanam inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla subhanahu taala lépp la man lépp kon kattanam moo maanaam peeg àdduna bi yépp dara tëliwu ko laa yujizuhu shay'un fi l ard wala fi sama comme ni mu ko waxee ci beneen laaya dara tëliwu yàlla tëliwul dara ci asamaan ak ci kaw suuf ah lii kay lu leer la lii mooy sunu pas-pas lépp a ngi ci alquran lépp a ngi ci sunna loolu laaj rek ma tontu léegi léegi muy muy muy muy deuxième débat bi ah kon léegi deuxième débat baa ngi noonu léegi seen ñëw naa ki laajam ayo bismillah seen ñëwal ak say laaj ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa alhamdulillah liggéeyuma suba te maa ngi yow fii ba fajar amul benn problème maa ngi lay déglu <laughs> ah su fekkente ne ñoom <laughs> maanaam conducteurs yi gars yi yor kii joxe nañ ci joxe nañ ci ndigal bu fekkente ne gars yi joxe nañ ci ndigal ah waaw bu boobaa moom ñu continuer bu fekkee ne gars yi joxe ci ndigal nag ñu bàyyi ba beneen yoon nga indi say laaj parce que ahlu sunna moom loo ci laaj moom alxuraan rek loo fu ma waxee rek alxuraan laa cay teg wala ma teg ci xadis ñun loolu lañ gëm bokku ñoo maanaam koo xamee ne benn laaj dong mënoo koo tontu ci alxuraan ak sunna ah non barakallahu fikum <laughs> euh, sëñ Mouhammad euh, ñun de mën nga ñëw tuddee tur wu la neex gis nga ahlu sunna du waxi kese de ahlu sunna wal jamaa du waxi kese man maay ahlu sunna wal jamaa man maay du waxi kese xam nga lan mooy mbir mi moo di ne bu dee da nga ne ahlu sunna nga mooy lépp looy fas nga am lay wa mu tege ci sunna comme ni waa ahlu sunna def aljamaa mooy ña nga xamante ne mbooloo ma booloo woon ci dëgg mooy saaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ku jaar seenu yoon ba ba saa taxaw mbooloo mooma sa pas-pas wuutewul ak seen pas-pas képp koo xam ne melokaan yi mi ngi ci yow ci ahlu sunna wal nga bokk képp kum nekkul ci yow même boo ko waxee ak noonu ak noo mën a tuddee sa bopp ak noo mën a mel bokkoo ca kon yow nga wutal ñu tur wu la neex loolu maanaam dese nañoo yitteel de li ñu yitteel mooy ah nga laaj ñu loo xam ne amuñu ci firnde ci sunu pas-pas comme la la daloon ah loolu moom boo ko defee rek moom wax dëgg fa yàlla waxoon naa la ko nee naa la pas-pasu ahlu sunna wal jamaa benn bu mu mën a doon boo xam ne amuma ci firnde tey du ma fanaanoog moom mukk moo tax lépp loo xamante ne amaguma ci firnde actuellement nii munoo wax ba ma ba ma ba ma saxalal la ko du ko gëm mukk feek firnde li leerul yàlla togguma jëf ci lu ma xamul bu fekkente ne nag pas-pas la bu wér boo xamante ne lii laa waroon a fas mu wut te fasuma ko bu boobaa nag yow leeral ma ko ne man non non lii bu dee arrahmanu ala al arshi stawa waroo jàpp ne yàllaa ngi tiim arash da ngaa war a jàpp ne yàllaa ngi fépp ah bu boobaa indil ma firnde lan mooy wane ne yàllaa ngi fépp kan ci salafu salih moo ma sa wax ne yàllaa ngi fépp voilà seen seen xaaral ma déglu sa audio xaaral ma déglu sa audio yi sa audio yi déglooguma ko <laughs> ah sëñ seen ah moom kay la nga daan wax rek haatu burhanakum indil ay lay indi leen seeni lay déggoo liñ la wax yàlla ci jëmmam ma nga tiim arash loolu moo ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw feddali ko loolu kay jërul ñu ci dellu si waat xam-xamam ab gisamag ak nag ak kattanam yooyu moom mi ngi ci bépp place yàlla subhanahu wa taala amul fenn foo xamante ne kàttanam yeggu fa kàttanam mi ngi fépp mooy manipuler adduna bi loolu koy leer na amul dara lu koy wump ci benn place ci asamaan ak suuf ak kawnu bi yépp loolu moom xam-xamam dafa dafa matale wa anna allah wa anna allaha qad axaata bi kulli cheyin ilma borom bi tabaraka wa taala dafa peeg lépp ci xam-xam xam na lépp dara wump ko voilà légui loolu mooy li nga xamante ne loolu la alquran saxal sunna sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxal ko léegi nag su fekkente ne da nga ni yàlla ci jëmm jëmm yàlla subhanahu wa taala mi ngi fépp ba ca biir foos ba ah bu boobaa nga ni ñu nga xamal ñu ko nga indil ñu firndeli waaye nekk fii di jëfandikoo xel naan yàlla nekkul Arabie Saoudite nekkul nangam jëmmam ma nga tiim arash moo ko wax waaye xam-xamam ak kattanam ak gisam ak déggam loolu moom mi ngi fépp voilà leer na loolu mooy pas-pasu ahlu sunna léegi nag bu fekkente ne du noonu ah nee ñu du noonu nga indi firnde xanaa déggoo ni matalan yàlla subhanahu wa taala wa huwa maakum aynama kuntum jàngal laay bi yëpp nga dégg jàngal laay bi yëpp te nga dem ci asalafu saalih xam nga alquran boo ko bëggee dégg faaw nga dem ci asalafu saalih nga xam niñ koy firee amul kenn ci asalafu saalih maanaam fi lqurun almufaddala maanaam maas gi dund ak yonant bi ak ña yaroo seen keppaar ak ña ca toppaat mooy maasu ñoom imam malik amu ci kenn wala boo ko amee nga nga wax ma ko léegi ku dul bam aljahmiya mooy aljahmiya wa ak ña nga xamante ne ñoom ñooy almu'tazila ak ñooñu nga xam ne ñoom ñoom dañ ne yàlla du dégg du gis maanaam ñooñu yeneen pas-pas lañ yor ñooñu moom yow pas-pasu al ashari nga yor xam naa ko maanaam al aqida al ashariya moom nga yor mais pour vous dire que ni ashari mom génn na ci lolu alhamdullilah génn na ci ci mu jog dundam téré yaangi ni sama kanam moo ne yàlla subhanahu wa taala alam tara anna allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة inna allaha bi kulli shay'in alim moo tax asalafu saalih ne xoolal laaye bi xam-xam la ko yàlla wubbee xam-xam la yàlla tëjee nga xam ne kon yàlla ñaar ñu ne ñu nekk mu ne yàlla ne man maa leen ñetteel mooy ca xam-xam ba ak ca dégg ga ak ca gis ga ak ca kàttan ga ak ca mën ga borom bi tabaraka wa taala moo leen ñetteel moo leen ñetteel mooy lan mooy boo waxee sa moroom dégg xamal ne yàlla dégg na leen dégg gu raw gi la sa moroom di déggee mu ngi leen di gis gis gu raw gi la sa moroom di gisee mi ngi euh, mi ngi mel ne laaya ba borom bi tabaraka wa taala di wax naan wa huwa maakum aynama kuntum borom bi tabaraka wa taala mi ngi ànd ak yéen fu ngeen mën a ne ci lan ci xam-xam ak ci gis gam leen di gis ak ci dégg bam leen di dégg ak ca mënal gam leen mënal moom yàlla subhanahu wa taala jekku gam leen jekku جاكو جملن جاكو لولو لو اكزيست لا تي شريعه واي لو اكزيست لا تي لاكو عرب نان لا اكزيست تي شريعه ناخ يالا سبحانه وتعالى اي وخم امول كونتراديكسيون موي لان موي بو فكنتني داني الرحمن على العرش استوى يونت بالله كينا انا يالا مونيكو ميغي تي اسمان موني اكي غمنا يالا كون كونتراديكسيون امول فوفو كون جيمي يالا جي موم مو فيتي كاو ليب moo ne ca kaw comme ni ko yonent bi feddalee yàlla wax ko ci alquran waaye xam-xam baag gis ga dégg gaa kattan ga loolu moom mi ngi fépp te loolu mooy wa huwa maakum ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum ñett bu nekkee yàllaa leen ñeenteel naka noonu bu dee juróom lañ yàllaa leen juróom benneel et cetera laaya yooyu yépp ci xam-xam la ak ci gis ak ci dégg ak ci kattan ak yecca ak mboolem melokaani borom bi tabaraka wa taala yi nga xamante ne mooy yalla ci moom ci maanaam universel am nga xamante ne fépp la nekk voilà léegi jëmm yàlla ji nag moom yonantu nee na moom ma nga ca kaw comme nam ko waxee ci hadithul jaariya kon teg si sharia amul contradiction bu ci ne da nga koy teg place am mais yéen nag bu fekkente ne da ngeen ne yàllaa ngi fépp waa léegi arrahmanu ala al istawa gi nu koy firee dañ koy dañuy daal di wax ne istawa bi maanaa istawla mooy yàlla subhanahu wa taala dafa not arash not maanaam istawa kañ lay firi istawla ci arab ñu ne qad istawa bishrun ala al iraqi ñu ne leen loolu sax wérul loolu danañ ci ñëw ci ay détails <laughs> gis nga waa tasawuf moom bu leen tudd bu leen tudd ndax mënoo leen a layal moo tax bàyyi leen noonu rek yow léegi nañ waxtaan ci pas-pasu ahlu sunna rek waa tasawuf gàccee nga laama gàccee nga goo xam ne sa pas-pas yépp doo indi dalil kon bàyyil waat ahlu tasawuf bu buñ ci wax bu ma fa delloo si mukk yaa ma doon tere ne ma foo waxee dellu ci waa tey nag yaay wax di dellu ci waa tasawuf man waa tasawuf wéer naa leen nale parce que xam naa ne li ñu am ay firnde bokku ci léegi nag man samay firnde laa lay laay wax ak yow maanaam firnde yi nga xamante ne moom la ahlu sunna am wal jamaa am ci jëmmi borom bi tabaraka wa fan la ne voilà wax gi ngay wax ne boo doon ngénte fekkee woo ko maanaam loolu ak manqué la parce que gis nga boo booy non subhanallah euh, yàlla subhanahu wa taala dara ak mbindeef gis nga yow booy ngénte fekk yaa nga tukki yaa nga nekk beneen béréb maanaam xam nga sa jëmm newu fa lañuy wax doo ko dégg lañu nekk xamoo ko et cetera ay melokaan yu bari bari mais yàlla nag loolu dafa jomb ci moom yàlla subhanahu wa taala jëmmam ja nga xamante ne moo tiim arash teewul maanaam fu waay nekk yàlla subhanahu wa taala xam na ci li nga ne ma nga lay gis ma nga lay dégg te it ma nga lay manal ma nga lay jekku ci kàttanam mooy manipule adduna bi kon yéen li nga xamante ne moom ngeen mënta dégg mooy nan ngeen di waxee ni borom bi tabaraka wa taala ma nga tiim arash ba pare xam-xamam nekk fépp kooku mooy yàlla yàlla bokkul ak ñun man fii ma nekk nii fi mu ne li fii xew rek la laa xam fi mu ne nii yéen ñëpp ku ci ne nan nga toogee sa kër ndax da ngaa toog ndax da ngaa taxaw ndax da tëdd loolu lépp damaa wump parce que man place bii ma nekk bal sama kër sax lii xew ci biir lépp xaw ma ko néeg bi ma nekk nii sax am na lu fi xew loo xam ne xaw ma ko boo demee sama ginnaaw téere yee benn wun ko nga fa làqatu gisuma ko sama xam-xam yéegu fa borom bi tabaraka wa taala xam na loolu nag yaa allah kon nekk gu yàlla nekk tiim arash teewul xam-xamam a ngi fépp kattanam a ngi fépp ak gisam ak débbam mi ngi fépp déggam mi ngi fépp loolu boo ko defee rek da ngay daal di mën a boole laaye yi ñëw ci bunt bi yépp te asalafu saalih noonu lañ defoon léegi bëggumaa dellu ci téere yi alxaafid ibnu kathir الإمام إمام المفسرين ابن جرير الطبري اك كاي kay نيب ñëpp موي عبد الله بن عباس nga xamne yonent bi moko ko ñaanaloon loolu dellul ci firi yi mu firi lay yi ñu tuddu voilà dellul ci firi yi mu firi lay yi ñu tuddu ba nga xamantene ñom nu ñu ñoña pass pass bi may wax mom lañ gëmon legi nak boko wédé dana ca dellu legi ci téré yi wa alaykum assalam wa rahmatullah aywa seigne sëñ seen ya ni yag nga waxé ni ñoom nee nañu sunu borom moom nekkul fépp du teew fépp euh, xamul yonent bi lañ doon wax ne loolu yàgge nga ko gis nga li ñu wax dañ koy wax di ko baamu muy lu leer muy lu leer ci waxin waaye lu leerit ci layal ko mooy borom bi tabaraka wa taala jëmmam ma nga tiim arash moom yàlla ndax moo wax loolu yonent bi ñëw feddali ko waaye xam-xamam ak gisam akub déggam kàttanam mi ngi fépp yàlla amul lenn lu ñuy gis lu dul ne gis na ko euh, li nit dul gis sax yàlla da koy gis lépp loo xamante ne am na yàlla subhanahu wa da koy gis naka noonu ca déggam ba naka noonu ca kàttanam ga yàlla mooy manipuler àdduna bi loolu kay lu leer nañ la mooy manipuler àdduna bi mooy aar gaayam yi mooy alak ñi nga xamante ne ñooy noonam yi mooy manipuler àdduna bi mooy lépp lépp subhanahu wa moo koy def kon kàttanam moom lépp la matale waaye mom subhanahu wa taala jëmmam nag ma nga tiim arash moo ko waxal boppam yonent bi ñëw feddali ko kon boo ñëwee naan nee nañ yàlla du maanaam fekkewul lépp yàlla subhanahu wa taala lépp la fekke dara wump ko maanaam ku fekke mooy koo xamante ne dara wump la kooku mooy yàlla shahid maanaam yàlla subhanahu wa taala moo fekke lépp dara wump ko waye fekke gumuy fekke lépp tekkiwul ne jëmmam mi ngi fep jëmmam mom mo wax ne ma nga tim arash way li kay lu leer la lolu moy pass passu nak gañu bax baax ña léegi nag jëfandikool sa xel waxal indil ay firnde legi bu ko defé ñu delu ci as-salafu salih ñom nan lañu gisé ne jëmmi yàlla ji ma nga fan sëñ sëñ bi bàyyil wax yu suufee yi ngay wax nag wax yu suufee yi amu fi place gis nga waxal ci firnde wax ci xam-xam waaye wax yu suufe yi naan man ngaa nekk sa ca biir wana wa am ku ñëw sàcc sa poos doo ca doo ko yëg loolu dafa jomb ci borom bi tabaraka wa taala te xanaa déggoo li ñu wax yàlla subhanahu wa taala kattanam xam-xamam ab gisam akub déggam loolu amul frontière amul frontière mi ngi fépp yàlla subhanahu wa taala kii def naka sudul noonu fu mu ko mën a defee yàlla mënal na ko ca jamono booba mën na koo alak bu ko alagul rek ak lewetaayam ak dënniirloom moo tax xalim wala comme la yonent bi wax yàlla subhanahu wa taala léeg dana euh, maanaam bàyyi ab jaamam bàyyi goo xamante ne euh, da koy yoxal da koy mel ne ku koy da koy mel ne ku koy euh, seetaan mel ne koo xamante ne da koo bàyyi noonu nee na ki nga xamante ne mooy jaam bi tooñ yàlla dana ko bàyyi duko alak wala duko mbugal nga xamanteni bis bu ne bis bu ne ko nit c'est fini loolu ali yonente bi ali salatu wasalaam waxna ko ci hadith kon borom bi tabaraka wa taala jombuna ben place bu am ci mbinde fi fu meuna don ci asaman ak suuf dara di fa xew te moom kattanam yëggul ca foofa wala xam-xamam yegu fa wala la nga xamanteni moy mooy ab gisam akub déggam yëggu fa dedet yàlla wax nañ la la moy manipuler aduna bi loolu kay lu leer la ahlu sunna wal jamaa maanaa ma maanaa wa yudabbiru l amr wa yudabbiru l amr gi yàlla wax ci alquran mooy yàlla subhanahu wa taala mbir yépp ci loxoom la ne moo koy manipuler loolu nag ay melokaanama yoo xam ne moo ko mënal jëmmi boppam nag moom yàlla moom moo wax ne ma nga tiim arash yonent bi ñëw feddali ko waaw lii kay lu leer la lii la alquran ak sunna indi munoo fee andim xel ak dugg ak génn ba indi leneen lu tiim lii sahaba ya lii lañ gëmoon ñi nga xam ne ñooy asalafu salih ñëpp lii lañ gëmoon léegi nag man li ma bëgg rek mooy nga ni ma indil ma firnde luy wane ne asalafu salih lii lañ gëmoon ma toxalal la léegi nag yow ba xam nag ma toxalalal kenn ci ku mel ne imam malik imam malik yow lii ngay wax nii yàlla ngi fépp boo ko waxoon imam malik dañ ci yow ba faw boobu pas-pas imam malik xamu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nuyu mbokk yëpp damay wax ne suma gis-gis ci débat bi mooy débat bi dañoo waxoon ne mu nekk ci aqidatu ahli sunnati jamaa waaye li feeñ mooy dañ ko def ci ibnu taymiya te waru doon a demee noonu kii di mbokk mi di cheikh Modou Habib dafa xëcc débat bi yëpp yenn la ci ibnu taymiya ibnu taymiya nii ibnu taymiya naa loola nag euh, jàpp naa ne ay mbir a ko waral bu njëkk bi da ko réer ne ahlu sunnati wal jamaa amuñu jëmm joo xam ne dañu koy sellal ba moom lu mu wax noona la loola ibnu taymiya keneen ko dul ibnu taymiya ñooy sa em ñaareel bi bëgg wujjee ndax ku xam euh, fi nga xam ne fi la Modou Habib di waxee dana xam ne ñooña dañuy taqdis ay jëmm dañuy sellal ay nit ba nga xam ne jàpp nga ne moom waa ji li mu wax nii moom ku uteeg moom da ngay alako waaw wala la mu santaane woon ku ko bàyyi wala la mu digle wala la mu joxe ku ko bàyyi da ngay daal di alaku ci saasi léegi nag ñu foog nekkoon ahlu sunnati wal ñoom am nañu ñoo xam ne dañu leen di sellal comme ni nga xamee ne ñoom noonu la ñu sellalee ñeneen waaye alhamdulillah ahlu sunnati wal yi ñu amee nekkul ci ay jëmmu déedéet ñoom li ñu amee xaj la doxin la boo xam ne ku ànd ak ñoom ak ci kuréel boo mën a bokk ñu jël la nga amee ku wuuteeg ñoom ak foo mën a bokk it ñu sànni la te delloo la li nga xam ne loolu nga amee kon loolu euh, jar na xam bu baax a baax wasalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, beneen tomb bi seetal euh, sëñ Modou Habib jukki waxi ibnu taymiya si wa awaanihi mu ne ibnu taymiya dafa wax ne yàlla dafa am ñu koy dimbale malaaka yi dañuy dimbale yàlla kon yàlla dafa loot seetal wax jooju maanaam taassub xoolal lu muy def nit waaw léegi borom bi tabaaraka wa taala bi mu waxee ne in tansurullaha yansurkum xanaa kon moom Modou Habib dafay wax foofu ne kon yàlla daa lottu moo tax muy wax ne in tansurullaha yansurkum xanaa wa aqridullaha qardan xasana lebal leen yàlla bor bu rafet xanaa moom kon bu ñëwee day wax ne yàlla daa amul loolu moo tax moom muy wax lebal leen ma seetal wax jooju rek boroom bi tabaaraka wa képp koo xam ne nii yaa ngi ci lam digle yaa ngi bàyyi la mu tere kooka mën nañu ko jàpp ne day dimbale boroom bi tabaaraka wa taala koy dimbale ci sottal li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala bëgg mu sotti te borom bi lu mu bëgg mu sotti mooy ñëpp jaamu ko bu ñu bokkaale moom dara loolu la borom bi tabaaraka wa taala bëgg mu taxaw diinaam ji la bëgg mu taxaw ci kaw suuf si kon wax jooju lu si ñaaw ba ñu ko ñaawal nasalullah asalaamata wal hidaaya wasalaamaaleykum wallahi mbokk yi li leen sonal lii leen sonal mooy ñoom dañoo jàpp ne yàlla moo ngi ñooyam dañu jàpp ne daal yàlla subhanahu wa taala moom bindeef a yem non non yàlla yemu leen bindeef yàlla subhanahu wa taala nuróowul dara ak bindeef yàlla subhanahu wa taala ab gisam yemul ak bu mbindeef naka nonu déggam naka nonu melokan yi sax ci alquran ak sunna yep ñeel ko mom yàlla melokan yoyu yep yu ci bare bari sax na ci mbindeef waye nak melokan wa yàlla am ak wo mbindeef am du ben comme ni jëmmi yàlla wuuteeg jëmmi mbindeef noonu la ay melokaanam wuutee ak melokaan yi mbindeef moo tax ahlu sunna wal jamaa am benn régal boo xamante ne moom lañ daan indi di ko delloo waxi ñi nga xam ne ñooy al ashariya comme sama gars yi mooy al qawlu fi baadi sifaat kal qawlu fi l baad al axar mooy loo wax ci melokaan yi yàlla lenn ci melokaan yàlla loo ca wax rek lu mel noona mën nga ko wax ci yeneen melokaan yi maanaam al ashariya mooy sama gars yi nii dañoo gëm nañ ne yàlla dana dégg dana gis am na xam-xam am na kàttan day dund euh, et cetera juróom-ñaari melokaan yoo xamante ne yépp saxalal nañ ko yàlla melokaan yooyu saxal gi ñu ko saxalal yàlla dañ ne ndax ci xel lañ ko teg teguñu ko ci texte ci xel lañ ko teg léegi ñu ne leen melokaan yooyu ngeen saxal ci xel waa ñu nit melokaan yi ñu saxal manees na ko saxal ci xel de moo ne maanaam fu ngeen dëgg ba saxal yooyu melokaan ci yàlla rek mën nañ faa dëgg ba saxal yeneen melokaan yi yi ngeen dàq parce que dañu naan la yàlla day dund ndax comme que moo bind rek ku bind moom moom normalement il faut muy dund parce que ku dee moom koo xam ne amul faw moom mu mu euh, koo xam ne amul munta amal dara munta bind ñu ne kon ah, kon yàlla mu ngi dund yàlla day dégg ndax bu fekkoon ne du dégg du gis du xam kooku kon matul yàlla ndax du xam luy xew ñu ne leen waaw kay lu tax ngeen saxalal yàlla dund te mbindeefit day dund lu tax ngeen saxalal yàlla dégg ak xam-xam ak gis yooyu yëpp am na ci mbindeef ñu ne mbindeef melokaan yooyu nuróolewu kook yàlla yàlla nuróo déggam yamul ak déggu mbindeef et cetera ñu ne leen waaw kay moo tax borom bi tabaraka wa taala baaraam yi ko yonentu saxalal nuróowul ak yu mbindeef ñaari loxo yi nuróowul ak yu mbindeef ndëggu nuróowul ak mbindeef nuróowul ak mbindeef dara ndax yàlla moo ne laysa kamithlihi shay nuróowul ak mbindeef ci dara kon loolu daal moom moo leen jaaxal moo tax sëñ seen voilà mi ngi noonu yow mi ne yàllaa ngi fépp ci jëmmam ba ca biir foos ba ah waaw indil ñu firnde <laughs> ak it kan moo ko wax ci asalafu saalih doo ko andi mukk ñoom imam malik ña jamono ak ñoom ak ña leen suuf ña leen kaw bopp doo ko andi mukk ñoom xamuñoon loolu moo tax pas-pasu imam malik pas-pasu imam ahmad ashafii abu hanifa mooy borom ñeenti ngéer yi ak ña leen kaw ña leen jiitu ñooñu ñëpp lii may wax nii moom lañ gëm <laughs> léegi nag bu fekkente ne li ma wax du noonu ah, ñu dellu ca téere yi rek waaleykum assalaam wa rahmatullah xayaakumullah abu ibrahim barakallahu fiik ahsant eh, tayib mbokk yi kon bu ko defee ñu fanaan jàmm maa ngi ñëw daal di kon yeewi ko ba beneen jamono incha allah <laughs> li moom bëggoon rek dama bëggoon rek suñu seen ñëw daal jël relais bi pour ah, ko defee pas-pasu ahlu sunna wal jamaa day gën a leer rek parce que moom lu laaj di gën a bari rek pas-pasu ahlu sunna di gën a leer wallahi alladi la ilaha illa hu waaye kon daal ñi ngi yem foofu kon ba beneen yoon insha allah eh, ci beneen jamono barakallahu fiikum léegi daal li ñuy mujje mooy pas-pas moom xam firnde moo jiitu pas-pas loolu bokk na ci particularité yi nga xam ne sunna dañ koo am moo di ne bala ñoo fas dara xam firnde ya voilà ñaareel bi mooy pas-pas ci texte lay saxe waaye du saxe ci am xel ndax xel mën naa wuuteeg texte waaye texte moom xel mu wér du wuuteeg mom xel mën naa tek wuuteeg texte waaye texte bi wér moom moom faw xel mu dana ànd ak mom waye nag xel mën naa ñëw jaar fële texte jaar kon pas buntu biri di buntu pas-pas toxal rek toxal looy fas lu ne neel ndax yàlla nee na ndax yonent bi nee na saaba yi lañu la ñu gëmoon asalafu saalih sa pas-pas nii lay saxe kon loolu ci la ñuy wéy di ci dox suba ak ngoon te lépp lu ñu waay laaj ci loolu lañ lay tontu di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon daal li may wax waa waa waa waa boor moo di lañ leen laajoon ngeen tële ci ahlu sunna ñoom taliwuñ loolu mooy indi firnde ah déedéet هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk mi man jàpp naa ne gis nga noonu ñu ko daan waxee sa jamono xale yaa noona moo wér te it du yaa ko daan waxal sa bopp borom bi tabarak wa taala moo la bindee noona te gis nga képp ku ñu bàyyi noona mu gëm ne yàlla mu ngi ci kaw ndax mu ngi ko daan waxee ba mu nekkee xale suñu ko bàyyee ca loola moom su magee it loola mooy continuer nekk si moom koo gis mu dem rek ba naan yàlla ngi si bépp palaas ak nangam na fekk na moom dañoo ceeñ fitra bi nekk si moom maanaam dañoo soppi fitra bi nga xam ne moom moo nekk ci moom ni koy xamee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa comme ni mu ñëwee ci biir waxtaan wi su dégloo ab xale bu jigéen ne ko ana yàlla xale bu jigéen bi ne ko yàlla mu ci kaw mu ne ko man maay kan mu ne ko yow yaay yonentu yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa saxal li xale bi wax noona loola dalay xamal ne la li wiir mooy ne borom bi tabaaraka wa ci kaw la nekk borom bi tabaaraka wa ci kaw la nekk te loolu mooy mbindere bi nga xam ne it fitra bi nga xam ne moom la yàlla bindee nit dégg nga ba tax na kenn doo gis kenn kuy jël loxoom yi di ñaan di jël loxo yi da di di jubale ca suuf waaye buy ñaan daf koy day yëkkati loxo yi yene la ko ca kaw moo tax xale yi nga xam ne seen fitra mu ngi set boo leen fekkoon ci ndaje nga ne kan moo yàlla ñoom ñëppay ànd wala ana yàlla ñoom ñëppay àndandoo yëkkati seen baaraam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 bu loolu wéyee ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa defal ñu tawfiq defal leen ko te musal ñu ci sunu ay bakkan ak sunu ñaawtee fi jëf di jégalu mbokk yi ndaxte tey moom dañoo fees dell aki programme rawatina mu tombeek bisu ajjuma nga xamante ne dañuy Euh, faral di euh, jàpp ci bis boobu lool euh, ba tax na ca suba ba léegi dugguñu ci daara ji li nga xamante ne moom lañ bëggoon wax rek mooy fa ñu daanele woon démb moo di ahlu sunna wal jamaa seen pas-pas dafa am ay particularité dafa am ay particularité mooy ay jagoo yoo xamante ne wala ay jagle yoo xamante ne pas-pas boobu moo ko jagoo bokk na ci jaglek ahlu sunna wal jamaa ci seen pas moo di seen pas balluwaay ba mooy alquran alkarim wax yàlla subhaanahu wa taala ak sunna si wér tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ak boroom xam-xami lislaam ya yaroo woon ca keppaar yonent bi sallallahu alayhi wa muy saaba yi lañu booloo ak ña topp seenu yoon ba ba saa di taxaw loolu mooy delluwaayu ahlu sunna wal jamaa ci seen pas ñaareel bi e, ci yi nga xamante ne ahlu sunna wal jamaa ñoo ko jagoo te ñu ko doon wax lu baree bari di ko baamu moo di ahlu sunna seen pas-pas mooy maanaam firnde ya mooy jiitu pas-pas ba bi maanaa ñoom duñu fas dara lu dul gannaaw bañ ci amee firnde moo xam ci jëmmi boroom bi tabaraka wa taala la wala ci kumpa yi nga xamante ne ay kumpala yoo xamante ne kenn mënu caa xam dara lu dul yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla di xamal wax la ko ca lu mel ne lii xew ci biir bàmmeel waaye lu mel ne lay xew ëllëg yowmal qiyaama waaye lu mel ne kumpa yi nga xamante ne moo ne ci mbindeefi yàlla yi muy ci jinne yi ak ci malaaka yi muy yoo xamante ne day um wump doomu aadama nga xamante lu ñu ca lu ca yàlla xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ñu ko wala yàlla ci boppam xamal ñu ko loola dañ koy daal di xam waaye loola na nañu ko xamee noonu lañ koy gëmee kon loolu mooy li nga xamante ne mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa kon du ñu wax ne dara dana xew ci biir bàmmeel lu dul ne loola daa daa wér ci ab tex du ñu wax ne dara dana xew ëllëg yowmal qiyaama lu dul lu ñu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar bokk na ci particularité pas-pasu ahlu sunna wal jamaat mooy dafa leer te yomb dafa leerte yomb lu tax mu leer te yomb ndax lislaam ci boppam moo leerte yomb te ñoom seen pas-pas mooy pas-pasu lislaam ba nga xamante ne moom la yàlla wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee jëmmi borom bi tabaraka wa taala ahlu sunna gëm nañ ne yàlla subhanahu wa taala am na am na jëmm ju nuroog ju nuroowul lenn ci jëmm yi nga xamante ne mooy jëmbi bi fii naka noonu borom bi tabaraka wa ay melokaanam ay melokaanam moom dong ko jagoo lépp lu mu saxalal boppam ci ay melokaan wala yonent yàlla bi saxalal koko moom yon yàlla subhanahu wa taala dañuy gëm ne melokaan yooyee lu sax la ci yàlla ca mu yelle ca jëmmam ju tedd ja subhanahu wa te melokaan yooyee dafa woroo dafa wuute ak li nga xamante ne mooy melokaanu mbindee fii mën nañoo bokk nag ay tur kom yàlla subhanahu wa ni muy déggee ak ni muy dafay dégg dafay gis dafay dafa am xam-xam bu mat dafa xereñ dafa nekk koo xamante ne day namm day soob yàlla subhanahu wa taala am na ay loxo am na ay bët am na ay baaraam waaye yooyu melokaan yépp gis gaa dégg ga ba ba ngay ñëw ca baaraam ya dafa woroo ak li nga xamante ne mooy melokaanu mbindeef yi doonte mën nañoo bokk ay tur comme dégg ak gis kon loolu la ahlu sunna jamaa fas te mooy li nga xamante ne moom lañ doon faram fàccee biig te lenn lu ci nekk buñ ne am nay loxo ne laaya baa ngi nii wala xadis baa ngi nii buñ ne am nay bët ne baa ngi nii xadis baa ngi nii buñ ne dafay wàcc ne laaya baa ngi nii xadis baa ngi nii buñ ne jëmmam ma nga tiim arash ne yàlla subhanahu wa taala nee na arrahmanu ala al arsh istawa ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu laajee koo kee xale bu jigéen boobee ne ko ana yàlla dane ko mi ngi ci asamaan mu daal di koy seedeel ak ngëmam kon pas-pasu ahlu sunna wal jamaa yépp nii la tege ci ay firnde loolu mooy li nga xamante ne moo waraloon waxtaanu démb wi lan mooy ñu xamle ne pas-pasu ahlu sunna wal jamaa loo ci ne cappalaal aaya baa nga taxaw walla xadis baa nga taxaw euh, donte waxtaanu démb wi ki nga xamante ne moom lañ ko séqaloon bëggul woon yëf yi leer moo tax bu ñu waxee jëm ndar mu wax jëm ndakaaru li nga xamante ne moo taxoon a jóg waxtaan yu mooy ñu leeral pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ca tàmbali ba teeloon nañoo xamle ni amul kenn nit koo xamante ne ci moom la ñuy dellu ci pas-pas ku dul bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul moom day juum day jaar ca yoon wa boroom xam-xami lislaam yi ay kuuy yu mag a ngi ci yoo xamante ne li ñu leeral ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa bari na rafet na waaye nag kenn ci ñoom muccul ci njuumte waaye nag boo leen boolee ñoom ñépp la ñu fas mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ba wér waaye nag amul kenn koo ciy jël lu dul ne dana juum tarxiis ci ay masala ak ku mën a doon loolu dem na ba yegg ca saaba ya ndax bu ngeen xoolee ci saaba yi wuute woon nañ ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na boroomam ak bët wala déet am ca ñu wax lii am ca ñu wax lee am ñu nekk ca yoon am ñoo xamante ne la wax njuumte la kon nga gis ne kon loole dafay am ca jamonoy saaba ya ba ba ngay wàcc di rogalaat jëm ci suuf kon moo tax pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ngoog akuk leeram pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mi ngi noonu aki firndéem yu sax te leer lépp loo xamante ne moo aju ci jëmmi borom bi tabaraka wa taala ki melokaanam ahlu sunna wal jamaa fañ ca yem mooy fa ca texte ya tukkee ci alquran ak sunna yam na ko ya saxale noonu lañ koy saxale waaye duñu takkiif duñu ne yàlla naka lay naka lay cëram mel wala naka lay melokaanam mel wala naka la jëmmam mel loolu yàlla waxuñu ko yàlla wax nañu ne am nay melokaan melokaan yooyu dañ koy saxal dëgg-dëgg saxal ca ko saxalee moom ak ab yonentam comme na ko saaba yi gëme woon ñu gëme ko noonu waaye nag duñ ne nii la mel waaye dañuy dogune ne wuute naag li nga xamante ne mooy melokaanu mbindeef yi kon loolu ci gàttal moo doon pas-pasu ahlu sunna wal jamaa moom lañ doon leeral di ko layil Euh, amul benn pas-pas boo xamante ne féex na ci firnde lu tukkee ci alxuraan ak sunna wuuteeg pas-pas yi nga xamante ne moo juuyoo ak li nga xamante ne mooy pas-pas boobu moo tax démb bi ñuy waxtaan bu fekk saa yu ñu indee firnde comme ne jëmmi borom bi tabaraka wa taala ma nga tiim arash wala borom bi tabaraka wa taala dafay wàcc xaaju guddi gi ñetteelu xaaju guddi gi bu dugg see dafay wàcc ba ci asamaanu àdduna koo xamante ne dafa ni borom bi tabaraka wa taala loolu moom du wàcc bu boobaa dañ lay laaj kon nan ngay def ak texte boobu yonent bi wax duñ ca nangoo wax dañ koy daal di jéggi daal ne capp foofa wuti leneen ndax lan ndaxte bu ñëwee ci firi yonent bi lim doon wax ne yanzilu rabbuna borom bi taba sunu borom tabaraka wa dafay wàcc guddi gu ne ba ci asamaanu àdduna naan ku ma jéggalu ma jéggal ko ku may ñaan ma may ko ku may laaj ma jox ko boo leen waxee ne leen loolu nan ngeen koy fiire ñu ne cell wër wëri jaar feneen mbokk yi pas-pas du saxe noonu kon texte yi nga xamante ne moo ñëw ci sharia la ca sax na mu saxe noonu lañ koy saxale loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy bu ñuy waxtaan ci xam-xam di waxtaan ci atte yoo xamante ne mu ngi jëm ci sunu diine ñun ñépp dañoo war a ànd ak ab yar waaye dañoo war a ànd ak ak dal kenn du wax baat boo xamante ne naka sudul noona la comme wax sa moroom ne ko dangay nar walla wax sa moroom maanaam kaddu goo xamante ne naka sudul dul noona la loolu dañ ko war a wattandiku moo xam yow mi askanoo ci tasawuf nga wala yow mi askanoo ci ahlu sunna wal jamaa yàlla subhaanahu wa dafa wax ci alquran ne wa quulu linnaasi xusnan wala ci beneen riwaaya bu xam ne mutawaatir la wa quulu linnaasi xasanan dee leen wax nit ñi wax ju rafet te li nga xamante ne mooy waxtaan ci diine ci masala di débat tekkiwul ne ku ci nekk day xotti sa wor mooy moroom loolu ku koy def rek mooy koo xamante ne dafa lott ci indi ay firnde bi maanaa moom gasakaam ay firnde néew ci bu ko defee day daal di ñaari baat ñett mu daal di génnee wax ju ñaaw arab daf daan wax ne kullu inain bima fihi yandaxu ndab lu nekk la mu def rek loolu lay senn loolu lay senn loolu lay seet kon ki nga xamante ne mbuusam gasakaam wax ju ñaaw moo ca ne waaye ay firnde néew ca kooku bu waxee faw mu wax wax ju ñaaw wax ju suufe waaye ki nga xamante ne ay firnde la fees dell kooku lu mu wax ne sax na wala mu ne lu saxul day daal di indi firnde ci alquran ak sunna ndax looloo nekk ca gafakaam kon wax ju rafet loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko jàngal waaye alquran ci boppam moo ñu ko njëkk a jàngal alquran daf ñoo jàngal ñun julit même buñ doon débattre ak koo xamante ne du ab julit mooy ahlul kitaab yàlla dani wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan bu leen weranteeg waa ahlul lu dul ca na mu gën a rafete lu dul ca na mu gën a rafete yonent bi sallallahu alayhi wa mi doon waqante aka débat ak ña nga xamante ne ay yéefar lañ nga xam ne bokkuñu sax ci waa waa ahlul kitaab yàlla dani ko wa jaadiluhum billati hiya ahsan na nga wàqanteeg ñoom débattre ak ñoom ca na mu gën a rafete kon lii yar bi moom lañu lislaam jox moo tax lu ñu mën a nit lu mu mën a wax mën na ko wax ci ak dal mën na ko wax ci ak yar waaye mu tegu ci ay firnde waaye bu ñu yëkkatee wax ju ñaaw teg ko ci sa kaw yow mi nga xamante ne yow yaa yaroo ci keppaaruk alquran ak sunna bu boobaa bul delloo lu mel noonu doonte yàlla nee na wa jazaau sayiatin sayiatum mithluha lu ñaaw lu ñaaw lu mel noonaa koy faj boo ko defee amoo bàkkaar waaye nag am na lu gën loolu yàlla nee na fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah koo xamante ne baale na yewenal kooku ab yoolam ma ngi koy xaar fa borom bi tabaraka wa taala kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci waxtaan yu mel nii nga xamante ne ñu ngi koy taxawee saa yu ñu yëkkatee kàddu gu ñaaw teg ci sab der wala ñu saaga la wala ñu wax la lu mu mën a doon waay waay bul del loolu mel noonu waaye ki nga xamante ne moo def lu mel noonu di yëkkati kàddu yu suufee di teg ci sab der xamal ne dafa feebar ku feebar nag da ngay ñaan yàlla wéral ko feebar bi na ci moom moo tax mu jëfe wala mu waxee na mu waxee waaye bis bu wéree incha allahu loolu dana génn ci moom ndax lan ndax yow mi nga xamante ne yaa yaroo ci keppaaruk alquran ak sunna di ko dund na nga xam ne dafa bokk ci melokaan yi nga xamante ne ahlu sunna wal jamaa dañ leen cee yar te ñoo ko jagoo mooy aalamu nnaasi bilxaqi wa arxamuhum lil xalq moo di ne ñi yaraw ci keppaaru alquran ak sunna ñoo gën a xam ñëpp dëgg ndax ñoo gën a dégg alquran ak sunna ñëpp moo tax seen pas-pas ak seeni jaamu yàlla ak seen jëflante lépp alquran ak sunna moo leen di manipuler alquran ak sunna moo leen di orienté moo tax ñoo gën a xam ñëpp dëgg waaye xam googu ñu xam dëgg du tax mukk ñu jël nit ñi daa di jàpp daa di leen di teg coono daa di leen di bëggal leen li nga xamante ne mooy musiba déedéet waaye dañ leen di yërëm wa arhamuhum lil xalq dañuy yërëm nit ñi moo tax dañuy sonn loor ci leeral dëggug sunu boroom gi ak lu leen ca mën a fekk danañ joxe seenu der ñu cay wax lu ñaaw danañ dépenser seen alal danañ sànk lu bari ci seeni waxtu ngir loola ndax lan ndax dañoo yërëm doomu aadama yi ngir bëgg ñépp mën a mucc bu ëllëgee ñu bokk ànd dugg aljanna ga nga xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala préparel gaayam yu baax yi yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp kon loolu ay mbir la yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi xel kon ku alquran ak sunna yar képp kuy askanoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war ngaa bàyyi xel loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci joxe ay exemple yoo xamante ne du jeex du xaaj moo tax ahlu sunna ni ñu gën a wérlee ay pas-pas gën man koo layal noonu la ñu war a gën a rafete ay jukko noonu lañu ñu war a gën a rafete ay wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu yar ci pas-pas bu wér bu tege ci alquran ak ay waxam yar ñu ci ay jaamu yàlla bu sori ay bidaa ak i xuraafaat noonu la ñuy yaro ci ay jukko yu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci ay misaal yu dul jeex ci ay waxam waaye joxe na ci ay misaal yu dul jeex ci jëfam xool leen ki mas a ñëw ci kanamu yonent bi ne damaa bëgg nga may ma ndigal ma njaalo kilifa gu toll ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ko loolu waaye gëddu ko gërbalu ko waaye dani ko ah ndax bëgg nga ku njaaloo ak sa way jur wu jigéen mu ne ku ko def ma rey ko mu ne ko ah, moo ne nit ñi di bëggul ko njaaloo waay juram wu jigéen sa sœur sa bàjjen sa tante mu tuddal ko ñëpp mu ne ko loolu ku ko def maag yowa mu ne ko ña koy defal ay yi jàmbur lañ wala bàjjani jàmbur wala yi jàmbur te nit ñooñee bëgguñu ñu def kook seeni mbokk waaja daal di cay génn gannaaw ba mu ko ñaanalee ñaanam ga kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nit daan wu wàcc yoon wàcc yoon bu ñëwee day wax ak moom wax joo xamante ne ju tegu ci am xel la ju tegu ci firnde la waaye ju ànd ak yërmande te loolu mooy li nga xamante ne loolu la ñu yar moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax bu ñuy waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy diine bokk na ci exemple yi gën a mag yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko te ñi mu wuuteel ci pas-pas la jëflanteeloon mooy am na benn xale boo xamante ne ab juif la bu doon liggéeyee kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindaan maanaam yonent bi di ko fay gis ne jëflante googu rek gu rëy la mooy mu nangu ab juif di ko liggéeyal waaye ndax loolu lu yem ci mbiru àdduna la waaye mbiru diine fam ca war a yem la ca war a yem mooñu ko jàngal xale boobu doon liggéey ci kër yonente bi salallahu alayhi wa sallam feebar bi mu feebaree daal di toog kër baayam yonente bi salallahu alayhi wa sallam ca jukkoom ju rafet ja mu waaxoog tànkam ba egg kër baayi xale boobee ndax moom moo doon dëkkaale juif yi nga xam ne ñoo dëkkoon Madina ba loola amee yonent bi ñëw toog ci kanamu xale bi waxtaan ak moom laaj wér-gu-yaramam fu mu toll yonent bi ba mu demee ba war a ñibbi xale bi feebar na feebar bi metti na yonent bi gaaral ci moom lislaam xool leen ko ca xër ga ca yërëm nit jaam ña bëgg ga mu bëgg ñépp texe mu bañ xale bi génn àdduna ak pas-pasam boobu nga xam ne wérul mu gaaral ko wooteeb lislaam xale bi ñemewul a wuyu yonent bi fekk bayam ngi tok xale bi tank bayam ay bët maanaam xol bayam ba xam lu ko baayam di wax waye xol leen bayam nga xamne jif la te bu leen fatene jif yi yàlla neena na ñoo gën bañ julit ñi waye at humanitaire bi nga xamantene mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def lu mu lu bay ba wax bay bi daniko atia abal qasim allahu akbar mu ne ko topal ki nga xamne moy bayu qasim moy mooy bi alayhi salatu wassalam xale ba daal di tuub daal di ci l'islam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genné dani alhamdulillahi alladhi anqadhahu min nar ma ngi sante yàlla mi nga xamantene moko mussal ci sawara ki mo yërëmoon ñi nga xamantene moy nit ñi mo xeron ngir ñëpp jaar ci yoon wa li moy li nga xamantene mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar ñi nga xamantene ño yaro ci kepparu sunna ak alquran liñ bëgg wax ci netali boobu rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëflante bu rafet boobu mu jëflanteeg xale bi moo tax baayu xale bi xolam talli ba mu ne ko toppal li la yonent bi woo maanaam génnal sama diine man ak sama diine baay ak sama diine maam topp diine sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xale boobu dafa génn àdduna deewaale lislaam moo tax yonent bi daal di sant yàlla mi ko musal ci sawara kon loolu ñun ñépp bu ñuy waxtaan ci lislaam مثلا ممن دون لول لاني ورا جيتال لول لاني ورا جيتال الامام الشافعي بوك نا تي لي نيو توخالي تي موم موي واخ جو السلف الصالح لا بوكون بوكون تي السنه والجماعه تي سين يليمان صاح كاي دا دان واخ ني بوماي واختان اك نيت داماي ميبت يالا فينال دغ تي او لامينم كي مو مانا سلال نينا بوي واخ اك نيت تي day bëgg yàlla tàggat kooka ba lay dëgg feeña ca làmmiñu kooka lu tax mu ne ndax bu yàlla feeñalee dëgg ci aw làmmiñam man xam naa ni danaa ko nangu ndax dëgg ma tax a jóg waaye bu yàlla feeñalee dëgg ci samaw làmmiñ man yi nee na bu boobaa man moom mën na ko bañ a nangu ndax ñu bari dañuy topp seen bànneex loolu lu leer la lu ñu xam la te it lu ñuy dund la subaak ngoon guddeeg bëccëg bari na doomu aadama yoo xamante ne boo leen andiloon kaaba ga ca màkka walla nga wax leen laaya ba gën a leer wala xadis ba gën a leer ci loo mën a tegtaloo dañ koy wan gannaaw lu tax ngir parparloo waaye ngir topp bànneex waaye ngir rek ne xaaral naa defi pexe ba wax samay wax ba sama kàddu féete kaw loolu dafa génnuk cellal te dëgg alxaqu ablaj comme ni ko boroom xam-xam yi daan waxee dëgg day dafa leer naññi waaye wal baatilu laj ak neen moom li nga xamante ne ay caaxaan dafa lëj moo tax ko mën a layil mukk dëgg nag fu mu jibee dees koy xam ndax lan ndax laywa mooy tukkee ci wax yàlla tukkee ci wax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lu lëj moom kenn du ko mën a layil yàlla ñu borom bi tabaraka taala defal tawfiq bañu man di layil dëgg waaye bañu man koo fas wan gannaaw lépp loo xamante ne moo wuuteeg moom ak lumu ñu jege-jege ak luñ ko tàmm-tàmm allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaaca wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon moo tax dañ ne woon rek ñu nuyu mbokk yi euh, sànnente waat ay kàddu ginnaaw bi nga xamante ne euh, waxtaan nañ ba noppi te tey amuñu woon jot ngir dugg si a ah, di bër nag bër goo xamante ne xëy na mën naa am du yàgg eh, ab liggéey boo xamante ne ci la ñuy nekk buñ ci jógee incha allah danañ dellu siwaat ñëwaat ci waxtaan yi lépp loo xamante ne moo aju ci eh, pas-pasu ahlu sunna wal jamaa loolu moom danañ ko def ay waxtaan yoo xamante ne eh, pari série lay doon bis bu nekk wala semaine bu nekk ñu wàccee ci benn série naka noonu it lépp loo xamante ne moo aju ci waxtaanee point bu mu mën a doon ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ak kuñ ko mën a séqal danañ taxaw pour di ko def saa su ne inchaa allahu taala naka noonu pas-pas yi nga xam ne moo juuyoo ak pas-pasu ahlu sunna wal danañ ci def ay série euh, di ko génnee benn par benn di ci waxtaan di indi ay firnde luy wane ne yooyee juuyoo na ak alquran ak sunna ngir ñépp mën a xàmmee suñu borom boroom gi tukkee ca sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yoni woon waaye ñu mën a xam lépp lu wuuteeg moom ngir ñu mën ko wattandiku ngir ñu mën a jàpp ca dëgg ga wattandiku la wuuteeg moom ngir ñu mën a yegg ci ngërëmal borom bi tabaaraku wa taala mooy sunu objectif yàlla ñu ko yàlla defal defal leen ko ee, subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk